lahat ibnul xadiimu samat réew maa ngi lay nuyu tey ñaan yàlla may la dimbal yàlla nga yeggale naalu gaay baax gaay baax yi fi ci sëriñ Tuubaa nga xëy ko sëriñ Abdou Lahad Mbacké mi ngi gane àdduna atu ci Diourbel di leeru Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak soxna Maymuna Jaxate moo doon ñetteelu xalif général des Mourides gannaaw ba magam ja làqoo sëriñ Falilu Mbàkke gannaaw bi mu ganee àdduna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul ni woon nañu ko ñaanal ndax am na yaakaar gu rëy gu mu teg ci moom kàddu yooyu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke dëggal ko ndax liggéey yu am solo yi mu def ci dëkk bu sell bi di Touba. moom sëriñ Abdou Lahad Mbàkke mi ngi mokkale alxuraan ci wetu nijaayam jë sëriñ am Amsatu Jaxate mu doon yëngu ci mbay bu baax. ñun ñi nga xam ne euh, bay ak yooyu mooy suñu liggéey nan fas yéene li yàlla santaane ci mbay ñu di ko def di asaka di def lu leer ci suñu liggéey. amoon ay tool tubaab Belel Boki Barka Bara Dieng ak yeneen gox ñu ràññee ko woon ci nit ku dëggu ku bëggul woon daray caaxaan daan sàkku ci nit yi ñuy def lu baax di jubal tey dëggal. jub moom dafay loo xam ne. dafa mat a góorgóorlu ngir kenn da koo defalul kenn ku ne sa bopp rek nga koy defal alxuraan yàlla wàcce na ko ci yonent bi waaye ci nit ñi rek la jëm inaa anzalnaa alayka alkitaaba linnaasi bil haqqi daal ciy teg na fa man ihtada fa li nafsihi wa man dalla fi innamaa yadillu alayha wa maa anta alayhim bi wakiil kon nag nan góorgóorlu ci jub te xam ne sunu bopp la ñuy jubal bu nu bañee jubit sunu bopp rek la koy teg kon jub rek am njëriñ mu nekkoon un grand bâtisseur def lu bari ci dëkk bu sell bi di Touba lawal fa ay barab yu bari soppi xar kanamu Touba tabax hôpital gendarmerie gare routière marché moom sëriñ Abdou Lahad Mbacké moo yaatal jumaa ji def ci lépp lu jëm ci wàllu décoration marocaine loolu tollu woon ci benn milliard ak genn wàll def bibliothèque bu fees dell ak i téele alxuraan ak i xasida moom moo leeral Touba andi réseau téléphonique lu tollu itam ci fukki forage mu def ko fa mën nañu ci lim ay nu raxmati sëriñ Abdou Lahad Mbacké ba tey moom moo defar marché Ocass te tam ci dëkk bu sell bi di Touba moom moo fa woote woon jub ak jubal jëmale ko nag ci taalibe yi lu bare bari mu tere woon ko ci dëkk bu sell bi di Touba moom Cheikh Abdou Lahad Mbacké kilifa gu mag gi mi ngi làqu fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 1989 ca Touba. ñu ñaan yàlla suñu borom mu yokku leeram te taas ñu ci barkeem amin